damay tàmbali ci gërëm leen ci déplacement bi ngeen may ma journaliste yi point de presse la waaye ma sant xarit yi nga xam ne dañoo jóge fu sori ak fu jege sori na ba Kaolack sori na ba Saraya ba Tamba ba Vélingara ba Ziguinchor ba Matam Bakel ak suma mbokk yi nga xam ne nag ñooy waa Grand Yoff bi te ñoom it ñu nekk waa Ndar te ñoom ñëpp dañu dégg rek information bi dal di ñëw témoigner waa Guinguinéo aussi Gossas ak fu pour indi seen jàppale seen soutien seen xaritoo ak seen wëllëre yéen maa ngi leen di gërëm di leen sant ak ñëpp waa Touba ak tout le waaye di sant surtout aussi waa Kébémer waaw te Sidi Bara it wax ci seen tur mën naa wax ne ak aussi waa Tivaouane Diacksao ak waa Podor ak ñëpp daal. ñu commencer par euh, remercier les journalistes parce que yéenay yor xarale information xam naa ne nag dinaa jël temps tuuti ci expliquer ndax message dafa baax bu ko defee citoyen yëpp. am information bi nga xam ne mooy information bi am ngeen may ma nag ma dellu si ci ay événement euh, maanaam euh, à propos présidence de la quatorzième législature mooy assemblée bi nga xam ne moom la ñu installé le douze li tax ma bëgg cee dellu si dama ci dégg yoo xam ne yi méngoowul ak li am jëluma ko nag pour werante dama ko jël pour rétablir li tubaab naan rétablir les faits waaye nag sax balaa ma cee dugg damaa bëgg gërëm ñi nga xam ne ñoom laa àndaloon nag di campagne wax dëgg yàlla membre délégation bi responsable politique yi ci bokkoon ma ànd ak ñoom wër réew mi bokk na si ñi doon dawal chauffeur yi ak sécurité bi ne chauffeur nag dinaa tudd Bigler ndax moom yàgg na ma dawalal waaye ak sécurité bi yëpp mais remercier aussi population yi ak responsable yi nga xam ne ñoo ñu teeru te ñu ci bëri ma bokk ak ñoom tey assemblée nationale doonoon na nag lu metti xëy na di ngeen gis photo yi ñuy siiñ ak yu euh, waaye nag lu méttee métti la woon ci juróom benn fan ah ci naaju nawet kuy baykat xam nga ne naaj lu tàng la ci taw ak ci xiif voilà bëccëg yi gudd lool guddi yi gàtt lool waaye alhamdulilah rabbil alamina bu ñu la joxee mission da nga ciy def sa kemtulaayu kàttan def ci sa jom bu mettee nga siiñ rek muñ yenn saa yi siiñ bi gàññi lay doon sax waaye nga fexe rek ba def ci sa jom ba am ndam yéen nag journaliste yi en dix ans depuis 2012 defe naa li ma toog ak yéen jàkkaarloo nii bari na lool defe naa waaye defe naa ne mosu leen ma dégg ma wax sama diggante ak président Macky Sall waaye nag day toll jamono joo xam ne leeral dafay am solo président Macky nag ma wax leen man la ma ko wax yëpp du ci dindi dara. ci wàllu bilan ndax dama cee teg sama man du kuy ku du ma kuy wax ëlbateku wax leneen waaye nag foog ma wax leen li nga xam ne moo jot a xew li ma leen bëgg a wax mooy defe naa ne Sidi Bara wax na ko yàgg naa ci politique ba may am 32 ans de candidat présidentiel boo xam ne troisième la jël ci élection boobu la ma ràññee confier directoire de campagne boobu fanweeri at la am ak ñaar kon bu ma ñëwee ba toll fii ba am sët kon maa ngi bëgg a yàgg ci politique doon ci nag aussi responsable bu am expérience kon bu may toog di waxtaan ak président de la république président Benno Bokk Yaakaar mu jox ma parrainage parrainage boobu nag ma sant ci aussi ñu mel ni équipe bu ñoom Pape Mayel Thiam toog nañ ca seen permanence boobu presque ba trois heures quatre heures du matin pendant plus de deux mois day amul responsable bu ñëwul seet si ma foofu ma def loolu ëlbatiku wër Sénégal booba dafa fekk ma waxtaan ak président Macky Sall am accord ak moom sur la présidence de l'Assemblée nationale. dafa war dafa war dafa war dafa war dafa war. néew ma ci politique néew ma ci politique. du ma ci apprenti te ku ci am fula laa nag wan kenn du ma toog maanaam ba dernier moment nga naan indil sa këyit loolu amul li am li am mooy danoo discuter li ñu waroon a discuter ñu am un accord ferme sur la présidence de l'Assemblée nationale noonu la ma ko parce que ba mu may nommé conseil économique social et environnemental waxtaan nañ ci ba tënk ko deux mois avant donc président Macky Sall xam na ne li may wax dëgg la xam na ne loolu moo am. moom waxul dëgg. loolu moom. c'est vrai c'est vrai te doonu dugal sax ay alxuraan ci mbir waaye ku tegoon fii kaam ñu teg ci suñu loxo parce que loolu moo am li am nag mooy le 12 septembre bi ñuy bi ñuy installer le bureau de l'Assemblée nationale. neuf heures vingt six ci suba ci la ma woo yónnee ma message dama ndax ma woo la ma ne ko waaw mu ne ma ma daal seet naa ko ba seet consultation naa waaye damay changer avis diw lay def président de l'Assemblée nationale quinze minutes avant ñi mu yónni ñëw pour jox information yi député yi loolu mooy li am leneen amul heureusement d'ailleurs ma sant yàlla nekkaat jàngu ma politique nag bu ñuy def sa xol bi loolu doo doxalee noonu ak sa responsable doo doxalee noonu ak sa jigéen doo doxalee noonu ak sa am ni jàmm loolu mooy li nga xam ne bëggoon naa ko wax ndax moom ci boppam xam na ne fukki at muñ naa ko mu ciy am ay injustice yoo xam ne yii ah ñëpp fekkee nañu ba mañ may jógee primature bi ñu ma wax noonu gagné woo Grand Yoff kon da ngaa war a def waaye defe naa ne premier ministre bi maa koy ñaanal góob ma ne gagné na Parcelles Assainies góob ma ne gagné na bureau de vote góob ma ne gagné na Dakar waaye à chaque fois Mimi moom cas spécial lay doon waaye ñu ko rek ndax. li la tax a ak li taxoon ñu jàppale ko mooy Sénégal mu am lu mu ci liggéey nag loolu moom du ko ko mos a dégg waaye yu metti lay doon ndax xol du ay óom ba nga koy bës lu metti lay doon waaye bu la sa dëkk taxee jóg nga jàpp ne war indi sa contribution ndax nag koy seet New York moo gën a amee moo gën a bakkane moo ko taw feex journaliste yi lu fa nekk di la mettre la une ak yu waaye loolu yëpp da nga koy wuñ dal di ne suma réew dama war a ñëw indi ci suma expérience may woo nag sax cadre yi nga xam ne ñoo bitim réew ñu continuer ko def waaye nag na seen xol yi dëgër bu baax a baax kon la xewoon yëpp injustice yàgg naa am ba may jógee conseil économique et social fekkee ngeen ko <laughs> kama wutu moom jarul ma leen di nettali diggante ya ndax dama jàppoon ne comme ancien premier ministre bu amee tolof tolof ak président ba nga xam ne mooy sama président de parti man mi am niveau premier ministre man maa ko a aw maa ko war a tontu waaye noonu it téléphone moom man koy bëgg a min te woo ne ma waaw man daal defe naa ne xool naa ba xool waaye dama koy indi nga jóg moom mu toog waaw ñu naan sax waaw yow yooyu yëpp yow est-ce que amuloo li tubaab naan naïveté mm-hmm. ma ne leen noonu du naïveté ndax nit ki boo jëlee choix dañ naan choix de vie maanaam nga jàpp ne man daal nii laa bëgg dundee nii laa bëgg a indee contribution bi suma àddina yooyu bu ñëwee da nga koy muñ da nga koy encaisser ndax Sénégal ngay teg ci kanam ndax nag alhamdulilah rabil alamin bu la yàlla ubbilee wërsëg it war ngaa jàpp ne ci wërsëg woowu ak ci xam-xam ba ak ci expérience bi war nga koo delloo sa réew ci jàppale ci nga xam ne mooy liggéey te Sénégalais yi teg ko fi te loolu it aw ma ci benn lu may regretté kooku it bëgg naa ñu xam ko bu ko defee ñu xam bu baax ne ne lu metti lay doon dangay ngay jéggalu say xarit say am di jàmm say mbokk say àndandoo ndax xëy na yow la nga cay mën mun ñoom duñu ko ca mën a muñ te dara taxul nag souffrance boobu ñu koy am ci lu dul rek doon sa soppe sa an say àndandoo ak yu ni mel ñoom it maa ngi leen di jéggalu bu baax a baax baax ah di leen sant ci jàppale bi moo wax ne ci diggante bi am naa fi ay proposition pour liggéey bitim réew yu dul jeex te président Macky Sall wax naa ko ba offrir nañ ma ay poste Nations Unies yu kawe ba ca mujj un mois avant élection législative danañ ko jottali waxtaan wi moom xam na ne wax naa ko ko ne ko nag man li may jàpp ak li may choisir mooy jàppale la mu ne ma vous avez fait le bon choix un mois avant les élections législatives te jàpp naa it j'ai fait le bon choix ndax toog naa sama réew continuer di ko liggéeyal li ma bëgg nag euh, mesdames messieurs les journalistes ngeen comprendre mooy waxtaan wi du affaire wu poste du affaire wu privilège maanaam tawféex bu doon loolu rek kon du ma toog fii di waxtaan ak yéen ndax ce diggante ba nag moom ci boppam yónnee na ma ndaw yu dul jeex def ma ay proposition yoo xam ne du ma ko tudd fii bu doon tawféex rek ak privilège ak poste kon ma jël privilège yeeg poste yooyu ndax poste sax moo boo koy dund ma fàttali ne man fonctionnaire international laa woon ni ko Sidi Bara fàttali sant nekk New York jiite fa ab département di jëflante ak ministre yi nga xam ne ñoo ne ci àddina bi yëpp ak kilifa yi waaye man maa jël contact ak président Macky Sall xool profil yi ne kat. defe naa ne war naa mën a yor Sénégal ànd ak moom booba defe naa ne amul fonction géologue la waaye fonction moom boo xam ne bii amoon na ko amu ko woon donc amuloon lu mu joxe donc ànd ñu woon ak moom ndax i poste defe naa ne euh, loolu euh, lu ndax amutoon poste bu mu joxe ma àndoon ci la ak ñeneen day sa ma sama xel dem ci Alioune Badara Cissé mi nga xam ne jóge na fi il y un an di ñaan yàlla xaare ko àjjana ku bëgg réewam la woon ku am taxawaay la woon moom it waaye sama xel dem aussi ci junniy junniy junniy militant wu APR yi ak responsable yi nga xam ne 2012 dañ jógoon taxawu waaye tey ñu ngi naan waa ñun kon sunu engagement boobu pour lan la woon ndax li ci ëpp dañu jël ñi nga xam ne ñoom lañ doon xeexal teg leen ci seen kaw. dëgg ñu leen di romb yor seen i teranga bàyyi leen man dama jàpp ne jot na nag bu nuy politique ñu dugal ci li ñu naan ay valeur ak ñu dugal ci éthique man dama jàpp ne politique du rek njuuj njaaj wax na génn ci. du ma jiital sama mbokk bàyyi ki nga xam ne moo mérité du abus de confiance dama jàpp ne nag dañ cee war a boole aussi des valeurs sàmm kàddu yi ak respecter suñu constitution ak suñuy loi loolu nag moo may may ma jàll ci li nga xam ne mooy ali kalaj wolof nee na lu yëngu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 ndax mu sortir par la grande porte ndax kenn mënul nangu na ay bakkan di ndax loo xam ne lii waruta kenn waru la nangu kenn li ci lool kenn waruta nangu alalu kenn di ci yàqu parce que ni ma ko waxee troisième mandat est juridiquement et moralement impossible bu ko defee liggéey bi nga xam ne nag jot na koo liggéey waaw ki nga xam ne Sénégal yi tànnal nañ ko seen bopp librement ñoom ñu continuer liggéey boobu am na seen benn collègue yenn des journalistes ñu ngi koy wax sama fait sourire daf ma ne saa yu may musóoru taxaw ci glace bi xam naa sama xel a ngi ci deux mille vingt quatre waaw wax na dëgg de j'y pense encore plus intensément à ce Dakar. J'y pense très sérieusement. dinaa dem nag waxtaan ak sénégalais yi xale yi mag ñi ndaw ñi uti seen soutien kilifa diine yi artistes yi kilifa aada bien sûr ak diaspora bi wuti seen soutien.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 Euh, président coalition ba amul fenn koo xam ne yi mën nañ maa génne assemblée nationale bu ko defee nag bu ngeen compté xaw nu majorité bay demee waaye <laughs> loolu mooy la ca nekk kon loolu doon message yi nga xam ne tey bëggoon naa ko joxe ngeen jàllale ko askan wi dégg ko